war ngeen jàng aaya yi ba mën leen a tari bi ñuy jaar ci yoon wi ñu agsi ci ndox jaraf ja ne ko ndox a ngi nii ana lu tere nga sóob ma ci jëf ya saar juróom ñett aaya fanweer ak juróom benn ak aaya fanweer juróom ñaar beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum ni sool wàññi ko ci yéesu